asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ginnaaw bi ma sante yàlla julli ci yonent bi sant suñu ay waajur di gërëm suma sëriñ sëriñ Cheikh Anta Mbacke borom Daaru Salaam mu yàgg fi lool ànd ak wér ak mbooleemu bépp kilifa diine ak kilifa aada bu nekk ci réew mi di ñaan aussi Sénégal yàlla saxal fi jàmm ak mucc du nuyu nag ñëpp soppe yi mbokk yi xarit yi am di jàmm yi et di leen remercier la presse nationale et internationale di leen sant seen teewaay gis naa ni ngeen ñëwee massivement maa ngi koy rafetlu. et génération conscient ak ñi nekk ci sunu ginnaaw yëpp ñu ngi rafetlu seen teewaay ndaje mi nag ñu ñoo ko sàkk woon ndax li tax ñu sàkk ko mooy bëgg waxtaan ak yéen ndax bu ngeen xoolee continent bi ñu nekk muy continent africain ku nekk xam na ne suñu continent dafa bari richesse bari jumtukaay yoo xamante ni dafa am solo lool ci suñu continent muy la matière grise et waaye nag continent bi tey richesse bi li muy bari bari bari bari loolu ñu naan la culture africaine daf ci am solo lool rawatina la culture sénégalaise et bu ñuy wax la culture sénégalaise aussi musique daf ci am wàll wu am solo ba nga xamante ni tey sunu kilifa yi sunu grand frère yi sunu papa yi liggéey nañ ci musique sénégalaise liggéey boo xam ne am na fu ñu ko jëlee am fu ñu ko yóbbu. sur le plan national et sur le plan international liggéey ci liggéey bu bu am solo liggéey boobu nag man Pape Diouf personnellement bi ma defee loolu tubaab naan euh, introspection dama xalaat maanaam toog ci sama rukus mën a kan maanaam toog ci sama rukus mën a kan def sama jataayu bopp posé wu la question que ni sunu kilifa yi sunu aîné yi fi ñu yóbbu la musique sénégalaise porté ko sur le plan international loolu warul daanu loolu dafa war a gën a jëm kanam mais warul am tànk ginnaaw et loolu ma gis ni que lu bari tey ci génération bi ma bokk loolu tegu na ci sama kaw mbagg looloo waral ma war ci def liggéey bu am solo. damay fàtte quoi. Euh, bon waaw maa ngi lay sant bu baax si question bi nga xamante ni posé nga ma ko euh, Prince Art c'est une famille man ak ñoom. suñu ànd si à vie dara du ko dindi waaye nag léeg-léeg mbir jot nga am yeneen ambition ndax ambition la rek tey kuy ut ambition ci réew mi dangay ngay dimbali Ismaïla Lo wala ngay dimbali ku mel ni suma mag suma xarit Youssou Ndour ndax Ismaïla Lo ku ne xam ne ni bi ma nekkee xale dama ko daan seetaan RTS jamono boobu RTS sax moo am mu yore guitare ndeysaan yore harmonica di way taajagu ma ko daan seetaan tous les week ba mujj gi mu jaar super jamono liggéey fa liggéey bu mucc ayib jóge fa nag ci ay ambition gën a bëgg a élargir liggéeyam ber daaraam ba tey jii jonn yàlla tey ma jël aussi exemple ci sama mag sama xarit Youssou Deux Star Étoile de Dakar Super Étoile macha allah ba tey nekk un ministre de la République loolu ambition moo ko mais teewul nag ñam ko sosandoon tey su ma demee dëkk bu mel ni Finlande Helsinki daaw jël y a deux ans festival bu mag boobu waa Xasawaal yi defoon def ma ma nekkoon parrain bi. dama dem ñu joué festival ba pare guddi googu ndeysaan man ak suma papa Rane nelawul ñu fanaanee woy mu may nettali seen jaar-jaar ak Super Étoile naan ma su ma lay gis ni nga bëggee liggéey parce que dama dama ko doon woyloo ba njaajaan njaay bi may woyaat ne ci sama répertoire style boobu ci Rane Diallo laa ko gisee donc mu may xamal ni ma Youssou ni lañ daan nekkee bi ñu jógee étoile de Dakar war a beru nekk super étoile donc foofu Prince Art c'est ma sama kër la tey jii buñ ma soxlaa lu ma jàpp dama koy bàyyi wuy ji leen comme ni ko Bakar waxee sànq dafa wax dafa wax wax bu am solo que ni ñooñu dañ ma apporter lu bari man it ma am lu ma leen apporter mu nekk famille. waaye ki la timboo di la tette di la jox bi borom ngay naan jar na nag léeg-léeg boo wàccee bëgg a dëgëral tuuti rek say tànk pour mën a am dëgër laay donc prince a Pape Diouf c'est une famille rek moo changé maanaam ambition bëgg ma ni gën a élaborer sama carrière ci la musique sénégalaise rawatina la musique africaine mais loolu c'est une famille dara ko dindi incha allah. Euh, boo déggee man a maturité bés bu nekk rek ak la ca war a xew pour gàttal wax bi rek maturité mooy nit ki di nga toll foo xam ne da ngay am yeneen yëg-yëg yu bees loolu day nekk ci nit loolu lu nit di di yëgal boppam la euh, beneen bi ci topp par rapport ak. artistes yi nga xam ne bokk nañu ci disque bi nekkul ne dama soofantal sunu kilifa yi nekk ci réew mi au contraire waaye nag man je pense que ni damay représenter la musique sénégalaise bu ñu génnee sunu réew ndax tey mën naa ni waxuma ko sama bopp de. waaye askan wi ñoo naan Pape yow amatoo looy prouvé Sénégal ñu dem ba ni Pape Diouf est-ce que du mbalax rek la mën ci carrière am or que li nekk sama dënn bari na waaye comme que nag olof dafa ni mbay ci bu tàgg mbalax lañu am moom la ñuy porté fu nu mën a dem ci biir loolu yi jiwo yooyu ngay wax kilifa yooyu nga tudd yépp way no wayandoo naa ak ñoom tey ku mel ni Youssou def nañu ñaari duo xeex si buruma nag moom ñoo ko woyandoo ak sama sœur Viviane ak ndem si yàlla si nday nday Mari Ndiaye Gawlo yàlla ko yàlla xare aljana ak suma mag Souleymane Faye woyandoo nañu aussi yaa ko tey waaye gis na ni mën a bëggee mu invité ma Bercy ñu woyandoo ko mu nekk lu rafet Sénégalais yëpp euh, rafetlu ko Ismaïla Lo wooyandoon nañu ci benn projet boo xam ne Papis Konaté mi moo gérewul production bi carabine man ak moom ñu woyandoo jigéenu ndakaaru njaay bi nga xamante ni morceau la te man def ko man ci sama répertoire Baba woyandoo nañu waaye li ñu woye génnagul baakam yi moom mayu ko kër mu dugal ma ci studio ne ma pap déglul morso bi defal liggi santi kon je pense que nii tey suñu ténor yooyu yëpp woyandoor naa ak ñoom e loolu nag dama koy sante yàlla bu baax ndax ñooñu c'est des c'est des superstars kon tey bu ñu wàccee seen bopp am modeste bu toll noonu am ci yow kóolutee woyandoo ak yow loolu sant yàlla la bon par rapport ak Universal aussi euh, sant yàlla du xëccoo non ndax man lii damay dama naan am na loo xam ne ñaanu waajur la ndax label yu toll noonu jafe na nga liggéey un produit fini ñu accepté ko nangu ko jënd ndax bi ñuy door ñaari projet la woon Maxtaar dafa dem France pour outil partenaire boo xamante ni dañuy ubbeeku sur le plan international bi mu demee mu daje ak benn label bu ñuy wax Caprod Caprod présenter ñu beneen label bu ñuy wax Aztec ñu ñëw France toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ñu amoon ñaari projet bi ci njëkk mooy album international beneen bi ci topp mooy organiser pour def Bercy ñoom ñu ne mën nañu def production bi mais Bercy wóoluwul Pape ndax nee nañ du ñu dugal seen xaalis perte ndax bi ñu xaymaa Bercy bi budget bu énorme la donc ñun ci ndimbalu yàlla ñu ne leen bu leen neexee sax album bi ñuy def bu leen nu fay nan leen ko def win win andi leen arrangeur yi ñun lépp luy chargé mën nañ ko defal suñu bopp parce que nit booy boo nekkee ci liggéey gëm sa bopp gëm liggéey bi ngay def danga war a gëm ni bu ci yàlla àndee dafa war a dox ndax loolu il faut que xam ko que ni léeg-léeg nga génne album mu neex or que daj nga ci lu metti te nag dama gëm ni balaa ngaa jariñu faw nga ñàkk donc durant ces trois dernières années yooyu tout ce qui est ci album bi tout ce qui est hôtel tout ce yeneen dépense yi ñun ñoo ko jëloon en charge parce que gëm nañu suñu bopp yàlla defal mu sutura ñu dugg ci projet album bi Bercy ñoom ñu ne duñu jël risque di financer Bercy bi donc man ak suma rak Matar Diouf ak suma mag Pape Bokar Diouf ñun ñoo toog waxtaan ne nan leen dem gëm yàlla waaye nag wéetuñu ci ndax ñu bari dañ ci jàpp am na ñu ci jàpp sax te bëgguñu ñu tudd seen tur am ñu ci jàppit ndax gis nañ ni que Sénégal moo xew la mais du Pape Diouf ndax ñun Sénégal lañ demoon représenté ndax loolu bu échec woon du Pape Diouf moo échec ndax Pape dafa dem rek uti dafa dem rek sabablu Sénégal la demoon représenté loolu jiital naa ci presse bi ndax promotion boobu presse bi liggéey nañ ci liggéey bu am solo suma xarit yi jàpp nañ ci musiciens yi may àndal ànd nañoo man ci aventure boo xamante ni aventure bu metti la woon mais nag yàlla defal nañ ci sutura ba loolu moo gën a tax bi ñu liggéey suñu album mu nekk produit nii am labe yu bari yu ko bëggoon bi ñu Sony ak ñeneen ak ñeneen ak Trace ak ñeneen ak ñeneen mais ñun suñu maanaam bëgg-bëgg universal la woon parce que tey boo xoolee universal booy lim label yi gën a mag ci àdduna bi c'est le number one donc ñoom ci seen jëmi bopp bi ñu dégloo album bi yeggalewuñ ko ñu ne macha allah et que d'habitude bu ñu daan produire artiste ñoo la doon jox ñoo la jox studio boole la ak ay arrangeur boole la ak ay big maker gérer direction artistique bi ci ñoom leen ko bëggee ndax ñoom noonu lañuy liggéey mais yàlla dogal na ñun dañu liggéey ba pare. jox leen bande bi ñu déglu ko bi ñu ko dégloo ñu ne ah beneen voix wu Afrique juddu na gis nañ beneen beneen vision bu bees ndax soxla nañ lool kon loolu defe naa ni du ndamu Pape Diouf mais ndamu Sénégal la ndamu Afrique la donc li Cheikh moom moomu dugal universal ma signé ak ñoom nag un contrat de trois ans di ñaan yàlla ci kattanam album bi nga xamante ni wóolu nañ ma ba signé ma yàlla defal nu ci ndam ba ñoom buñ ci am déception disque d'or disque diamant disque platine kuy liggéey rek loolu ngay ñaan yàlla waaye nag ñun loolu taxuñu jóg liggéey moo ñu tax a jóg. donc euh, mu ñëwaat ci loolu que ni tey sunu aîné yi liggéey bu am solo bi ñu def ci la musique sénégalaise am fu ko jëlee am fu ko yóbbu man bi ma defee prise de conscience je me suis dit que ni. loolu warul daanu musique bi am na fu ko fekk ñu nit am na fu ko war a yóbbu looloo waral euh, presque depuis trois ans depuis trois ans Pape Diouf di tukki di dem France di dem Amérique ak yeneeni réew pour gën a ubbeeku gën a ut ouverture ngir mën a yokk sama xam-xam et ci tukki boobu sax dem naa ba samay fans yi ma gën a proche samay xarit ba ci sama famille euh, xawoon nañu am tuuti frustration ndax li ma leen daan tàmmal que ni chaque semaine daanaa tëgg maximum trois ba quatre fois dans la semaine mais loolu moo taxoon moo ma empêché woon dem uti xam-xam boobu gën a bi sama xam-xam sur le plan international loolu moo waraloon sax maanaam yëngu yi ma waroon di yëngu Sénégal mu wàññeeku donc ci biir loolu aussi euh, fan yi am na benn ay information yoo xamante ni mi ngi daw que ni Pape Diouf quitté na label bi mu nekkoon muy Prince Art effectivement loolu aussi damay ñëw pour dëggal ko waaye nag quitté bu rafet la ndax collaboration boo xamante ni ça date de dix-neuf ans loolu du colla collaboration bu ndaw loolu bu ànd bu ndaw donc bi ma ko waree def aussi def naa ko ci defin bu rafet ndax kër googu bi ma fay dugg dama fa dugg ci bunt bu rëy bi ma fa waree dem aussi bi mu jotee pour ma dem xooli leneen def naa ko jaaraat ci buntu bu rëy boobu ma duggee woon. dem naa seeti suma mag. Ngone Ndour suma frère Ibrahima Ndour ñu waxtaan en privé waxtaan ba déggoo ba lépp rafet ñu ñaanal ma souhaité ma bonne chance man aussi ma ñaanal leen souhaité leen bonne chance. ndax nag li waral loolu mooy la maturité jot na la maturité matur nañu et jot na ñu nit ñu dëgëral suñuy tànk liggéey te nag liggéey rek tax du leneen ci biir loolu aussi euh, bi ñu defee loolu ci jàmm ak salaam yàlla dogal na ñu xoolaat sunu yoon defaraat sunu taxawaay ngir mën a am tànk yu dëgg ci biir loolu j'ai de des yu bees ci suma staf muy suma management ndax teg nañu benn société entreprise bu mag boîte bu tudd PDG PDG su ngeen ko déggee mooy Pape Diouf Group ki nekk ci bopp bi mooy sama rak Makhtar Diop Soubatel ma am nag ak moom ay relation yu yàgg ça date quinze ans bu ko matul li koy manqué fukki at ak juróom bariwul Bakane Seck mii toog ku ne bàkkan ne Pape Diouf ndax fi nu jaar jaratul sax ma koy tudd ndax wax naa ko fu nekk ci àdduna bi sénégalais yëpp xam nañ ko donc bàkkan mi moo ma présenté woon Makhtar Makhtar nekk suma rak déggal ma bëgg ma tamit di ma suivre xër ci sama liggéey ba yàlla dogal tey mën naa ni réalisation yu mag yi gën a mag ci sama carrière muy Zénith 2013 di Bercy 2018 ba ci album bi nga xamante ni tey moo gën a tax ñu woo leen pour présenter leen ko single bi nga xamante ni mu war na génn ci album bi tudd Paris Dakar sabab yooyu yëpp ci loxo Makhtar Diop suba teel la ko yàlla dogalee ma am ci moom nag confiance bu mag am ci moom kóolute ba jël sama management dénk ko ko beneen bi ci toppit ki nga xamante ni aussi mooy le manager chargé de la communication de Pape Diouf moom it sama rakk la mu ngi nii toog sama wet muy Badara Gadiaga di samay rakk yoo xamante ni mën naa ne yar naa leen ci sama loxo tàggat naa leen si sama wet ndax biñ may fréquenté dara lalu ko woon lu dul cofeel ñu bokk usine ñaari tali muy suma ma yàgg ko xool mu nekk xale am aussi pas-pas nekk fans inconditionnel de Pape Diouf di ma baal si fu ma mën a nekk si àdduna fekk na ma c'est partout dans le Sénégal fekk na ma fu nekk Europe am ci man cofeel ma gis leen jàng leen am ci ñoom kóolute intégré leen ñu ñëw pour ànd ak man jàppale ma ci liggéey bi ngir Sénégal li ñu bëgg ci musique sénégalaise musique africaine ñu mën ci am ndam bu loolu weesoo aussi Papis Konaté ci kàttanu yàlla ci dogalu yàlla intégré na ci groupe bi muy la génération consciente ndax ku ne Pape Diouf aussi ne Papis ça date de trois ans liggéeyatuñu woon waaye yàlla def na ci ndox mu sedd ba tey booloo nañu àndandoo di liggéey trois ans yi fi nekkul aussi Souleymane Diop mi toog nga xam ne sama diggante ak moom dépassé na musique ak baakan mi nekk suma wet nga xam ne tey mën naa ne lu di njaaga mooy njaag ndax sama carrière ci moom la démarré waatee moo ma présenté Jimi mbay moo ma dugaloon jololi jamono yi Prince Art amul donc ànd bi yàgg loolu boobu ba tey ñuy àndandoo di cheminer di jóg di daanu Souleymane assuré intérim bi ñu dem partout dans le monde mu takk ndiggam disproposition bu ne mu toog jàpp ci liggéey bi ba yàlla dogal tey papis war a intégré groupe bi mu def ci nag ay jéego yu am solo baakan aussi def ci ay jéego yu am solo kon je pense que ni li ñu war a wax yépp tey bari na ndax occasion la mhm. mais di leen wax ni nag rek en grosso modo staff bi yaatu na waaye ñëpp mënuñu leen dévoiler mm-hmm. ndax li am solo rek mooy liggéey te yàlla rek tax Papis aussi ñu koy remercier ndax fekkoon nañ ko ci ay xat-xat mais dafa bàyyi lépp ñëw àndandoo ak ñun moom it muy sunu mag ñu jël sunu liggéey ñu ñëpp ñu booloo dénkaat ko sunu liggéey ngir nag sunu liggéey mën a jëm ci kanam ndax fi mu ñu fi ñu toll nii li ñu ñor rek mooy la musique sénégalaise aille li ñu ñor mooy musique sénégalaise jëm ci kanam li ñu ñor mooy Sénégal lañu bokk ay doomu sénégalais lañu Sénégal rek moo ñu ñor di remercier suma kilifa yi képp ku fi toog rek Zora Mbaye teew na Sala Bigué Grand Guissé Pène ak ñi nga xamante ni tey bëgguñu sax ku tudd seen tur ñi ngi dans l'ombre suma grand yi suma xarit yi suma mbokk yi suma am di jàmm yi maa ngi remercier ñëpp di leen wax ne kontaan nañu di sàkku ñaan nag ci kilifa diine yi ak kilifa aada yi ndax yoonu ndaw du gaaw donc ñu ngi sàkku ñaan ci ñëpp di remercier encore une fois soppe yi fans yi di leen xamal ni li waraloon maanaam euh, maximum de de d'événement yi du woon dara waaye nag dafa am lu ñu doon liggéey te loolu dafa laajoon dem sàkku ju xam-xam def nañ ko pendant trois ans yàlla dogal na pare nañu donc loolu la ñu war ñëw pour présenter leen ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. li ci te li ci des xam naa Badara à part question yi Badara dina ko dina ko combler incha allah jërë ngeen jëf.